biñ may tek loxo dafa ak euh, sam papa bu ndaw gañu mu nek jour bu tis jouru nakar bo xam xalatuma sam bop sax mais sam papa la doon xalat jour bobu non damay tok kasso sax man kese ma joy quoi. moom dan daanaka waxtu ñu waron dem rob new bi si lañ ko jël si ngir yóbbu ko jël. man rek ma nekkon ci kaw di defar caisse bi di tak ñu ñu ñu ñu ñu wër auto bi door ma foofu embuscade waa sûreté urbaine sam papa ñëw taxaw sama yaay song ma mu nekk image bu daw yaram boo xamante ni maanaam ñii dama ne ñii amuñu sax xol peut-être parce que nit ku am xol am na yoo xam ne doo ko def. bis boobu nag jàppante xawoon na am diggante àndandoo Ablaye yi ak takk der yi ndax bëgguñ ko woon bàyyi mu dem Ablaye nag moom it bëggul woon daw. man su may dem sama teeyaay baxen mais yéen mënoo leen maa forcer forcer forcer ba yóbbu ma booy na booy mettre len à l'écart ba paré dawal mané len man duma ma daw awma len lenn lu may daw parce que rus tourner di daw samay mbokk ñepp a nga fa té musuma daw kon du jour bobu lay daw. mom nak kaddu way jurom su góor sum dégg mo waral mu joxé bopam sam papa tamit ñew nek jambar ju dëgër ñew ne affaire comme ni la démé mané ko wa mané ko yow mu demal ko wa man sax après lool la xalat parce que néew bi ni ak nim taxawé ni nii yaq parce que bobu def nañ ci glace ba paré wara dem ba Touba naaj baa ngi tàng ñu tardel ñu foofu menacé chauffeur bi si laa ne ko nag waaw papa comme loolu nga gis jox nga ma ndigal mu ne waaw mu ne ko maa ngi dem kon dara du xew